bonsoir à tous et bienvenue l'invité de 7TV Soir waxtu wi jot na sunu gan yegg si na ñu am plaisir di recevoir euh, tey ci plateau bi Ismaël kebe il est consultant en management audit et évaluation de projet et programmes bokk mouvement euh, national des cadres patriotes ak parti bi nga xam ne mooy euh, PASTEF Ismaël Kébé ñu ngi lay nuyu. merci Mamadou maa ngi lay di la gërëm ci invitation bi di nuyu waa kër gi waa 7TV yëpp. Mhm. di beral nuyoo kilifa gi soxna may Maymuna euh, di ko ñaanal donc projet yi mu am ak équipe bi yàlla def mu réalise yàlla taxawu leen. amiin amiin donc bëggoon naa aussi balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. Mhm. ma nuyu sama waa dëkk. Mhm. Euh, waa Sokone euh, foofu laa dëkk donc foofu laay militer. Mhm. di nuyu waale waa département bi yëpp commune de département de Foundiougne. avec les 17 communes. Mhm. donc di nuyu seen mbokku téléspectateurs ak waa Sénégal yëpp. merci wax kontaan naa waxtaan. incha allah situation. politique bi et économique. merci bu réew jërëjëf di sant bu baax c'est également un plaisir pour ñun ñu lay recevoir laata ñuy dugg ci l'actualité politique ñu wax ci incident bi nga xam ne am na démb aéroport international Blaise Diagne euh, sortie de piste benn avion heureusement y a eu plus de peur que que mal. Euh, jàmm moo si mujj am euh, incident la boo xam ne dafa bokk si wàllu aéronautique mhm. euh, souvent euh, c'est très rare mais très souvent di nga dégg ay problème avion yu am problème Sénégal liñ ko fi gis bariwul mhm. donc bu amee tey heureusement que jotut jóg mhm. am na ay quelques blessés le ministre des transports dem na fa taxawu leen ànd ak équipe yi yëpp ñii ñu ngi ci hôpital yi ñii ñu ngi toog di noppalu également euh, ministre bi dégg nañ ko demandé na à ce que euh, une enquête soit ouverte mm-hmm. par le bureau euh, d'analyse euh, ñu xaar mm-hmm. ba xam lan moo ko waral euh, benn compagnie la sénégalaise bu ñu naan Transair ouais. Transair yàgg na di dem ci sous-région bi ak le sud du pays man mm-hmm. jël naa ko dem dem ci si Ziguinchor. Mhm. Euh, mosuñ ko gis si moom. mais yu mel nii dina tax ñu gën bàyyi xel. exactement parce que aussi boo seetloo euh, aéroport euh, Blaise Diagne xëy na yaa ngi koy wax c'est c'est un fait rare moo tax sax xëy na mu nit ñi di ci wax nii donc bëriwul lu muy am. mais aussi est-ce que waruñu gën ubbi suñuy bët war a gën a aussi les contrôles d'usage du rek ci côté transport aérien bi ah du moins général parce que aussi même dans le transport du secteur du transport routier dernièrement il na ay mort yu bëree problème mu Sénégal la mm -hmm. dans le cadre plus large euh, mooy souvent dañuy am ay règles ay procédures ay même loi et même les bonnes pratiques mhm. ñu ne nii lañ koy doxalee mais gis nañ ne Sénégal loolu daf fa sooxe mhm. et nit yi ils ne sont pas rigoureux parce que tous les textes sont là règlement yëpp ñu ngi fi mais appelé wa exactement ça ça fait ça fait ngay teg nit fenn jox ko process yëpp mu xam lii mooy le manuel des procédure lii la ñu war a def saa su ne. Mhm. mais avec la routine dañuy def loo xam ne seen coobare bopp la. Mhm. fu ñu war a contrôler duñ ko contrôler normal ku ñu gis mu def loo xam ne du yoon ñu maslaa duñ ne ko li c'est pas le bon euh, la bonne euh, méthode. Mm-hmm. mais boo ko waxee nit ki sax mu ne kii daf ma singli. mënuñ mhm. def la différence entre les rapports professionnels. ak la responsabilité même professionnelle. ah justement ba tey ci ci loolu euh, euh, les relation des uns entre les uns et les autres euh, comportement ku nekk mais aussi le contrôle bi nga xam ne war na dafay dem ba jéggi li nga xam ne mooy euh, transport wala dara mais dafay yaatu fés fépp ci Sénégal l'exemple que je peux donner mooy coow li jub fan yi le foncier gis nañu que ne bu dul woon xëy régime bu bees. amaana duñ mës a xam que ne amoon na scandale bu ngand boo xam ne lan lalu na ci. effectivement Mamadou foncier bi dafa doy problème yi dafa yàgg te réglé wuñ ko te pour ñu régle ko il faut mu am courage mhm. mu am autorité yu taxaw taxaw ne di dama koy régle parce que daf boo ko laalee dafa am ay pression yu ñu lay teg dafa am ay intérêt yow mi sa bopp man mii nii di wax nii tey buñ ko defee dina ma dal indirectement wala directement parce que mhm. am naa benn xarit am naa benn mbokk am naa benn partenaire boo xam ne business businessman la il a des ses mm-hmm. il faut que ñun ñu sacrifier suñu ay intérêt bopp teg intérêt Sénégal pour suñu ay doom ay sët. Mm-hmm. dëwén tey jii foncier bi administration je peut dire les services techniques de l'État muy domaine muy cadastre muy waa direction des eaux et forêts muy préfet yi muy euh, service technique yi nga xam ne yëpp service des eaux et forêts. Mm-hmm. ñoom ñëpp ak les collectivités territoriales les collectivités territoriales ñoo ci jiitu sax. ñooñu ñoo téye foncier bi. loi yi am na leer na nañ. Mhm. Sénégal mosuñ am problème mu texte. am nañ ay loi yu dëgër. Mhm. yoo xam ne problème bi mooy duñ ko appliquer. dañ koy contourner pour des intérêts personnels. c'est vrai que loi war nañ ko di évoluer. Mhm. parce que contexte yi bokkul. exactement et aussi actuellement économie bi. wala agriculture bi mun na laaj ay euh, mbir yu bees yoo xam ne pour ñu def ko il faut ñu actualiser loi bi mhm. bu boobaa ñu def ko mais loi am na boo xoolee foncier Sénégal trois catégories foncier moo am mhm. ñu bari duñ si duñ def la mhm. am na lu ñuy wax le domaine national nga xam ne kenn moomu ko maanaam immatriculé wuñ ko si turu kenn nii turu état nii turu particulier loolu domaine national mooy presque bi loi bi amee loi 64 moom moo ko def loi 64 la loi boobu noonu bi muy am presque 90 pour cent des terres si domaine national la bokk. d'accord mooy terres yi nga xam ne mu ngi si dafa am quatre catégories si domaine nationale domaine des terroirs mooy yi nga xam ne dañu fa dëkk. Mhm. mu am domaine classé mu am. domaine euh, zone urbaine yi nga xam ne mooy euh, commune yi ak li ko jege ak mu am euh, domaine des pionniers mooy yi nga xam ne dañ ko réserver loolu mooy domaine national. Mhm. au-delà de domaine national am na domaine lu ñuy wax domaine de l'État mu am beneen domaine bu ñu naan domaine des particuliers. Mhm. léegi domaine de l'État mooy lu ñuy wax le domaine public. nga xam ne c'est des titre yoo xam ne état moo ko moom et le domaine privé de l'État mhm. mooy titre foncier yi nga xam ne état moo ko moom mooy immeuble yi. Mhm. terrain yi nga xam ne ay immeuble état moo fa nekk euh, domaine public yi mooy hôpitaux yi marché yi terrain yi stade yi yooyu noonu destination bi warul nekk a à usage privé mhm. destination bi service public la nekk mais gis nañ ne au bénéfice ay inspecteur des impôts ñooy ñëw am seen ay courtier bu ñu demee ñu gis ay poche ci dëkk bi ñu dem defal leen ci ay ay boobu te loolu c'est interdit par la loi. justement par rapport au comportement des uns et des autres. voilà loolu c'est interdit par la loi parce que domaine public boo ko waree utiliser lenn nga si mën a def mooy ay concessions. Mhm. nga mën a def à des investisseurs. ay boo yoo xam ne du yàgg peut-être ay vingt ans. Mhm. nga xam bu temps bi jeexee ñu dindi ko. donc dañuy jël di spolier le domaine public de l'État si domaine de l'État boobu noonu dafa am lu ñuy wax si biir domaine public dafa am lu ñuy wax domaine public. maritime. Mhm. moom la ñuy wax littoral. mooy littoral bi. littoral bi loi bi daf ne géej gi domaine public maritime géej gi yëpp la. Mhm. géej gi la euh, fleuve yi at à cent mètres de la mer. Mhm. cent mètres de la mer boo jëlee corniche su Dakar. à 100 mètres gis nga beaucoup d'immeubles. beaucoup de maisons yoo constructions c'est commerce. man bu ma déggee ñu naan dañ fa am ay titres fonciers c'est faux. foofu mhm. nit mënu fa am bu ñu ko amee sax ni ñu ko amee jaaduwul am na am na ku dëngal quelque part. te loo am. Mhm. te jaaduwul même bu nekkee titre foncier la ñu ne titre foncier da jox droit kenn mënu ko jël kenn mënu ko jël lenn lañ ci mun mooy exproprier pour cause d'utilité publique. Mhm. indemniser la. mais loolu du ministre de l'économie maritime ministre de la pêche euh, des infrastructures maritimes moom moo ko gérer boo fa bëggee am concession mhm. dangay def une demande te demande bi day laaj avis même favorable de l'ANAM mhm. l'agence nationale euh, des affaires maritimes mu xool ndax amul ay impact euh, environnemental et tout mhm. ñu ne la d'accord buñ la ko joxee concession la mais concession bi dañ ne il faut mu nekk à usage euh, à usage public wala bu nekk dans le cadre à usage privé mais mu nekk d'intérêt public. Mhm. muy amal njariñ askan wi. amal njëriñ askan bi du nekk man sama kër laa. sa bànneexu bopp rek man mhm, sa bànneexu bopp rek loo xam ne peut-être nga def fa benn clinique boo xam ne nit ñi dinañ fa ñëw. Mhm. loolu mun nañu wax ne. ah mais tey bu weesoo littoral bi y a aussi un autre problème mooy bi am ci euh, li ñu naan les forêts Euh, te pouvoir état am pouvoir la président am pouvoir euh, déclassifier ko jox ko ay nit ñu dëkk fa loolu aussi gis nañ ko ci ñaari peut-être zone yu ñuy tudd jamono ji muy euh, mburkaat bu cees ak xëy na filao yi nekk loolu aussi ban rôle la ci ku nekk war a mën a am effectivement forêt classée yooyu noonu wax naa ko léegi si sama kii que c'est dans le domaine national mhm. mooy les zones classées yi nga xam ne forêt la dañ ko bëgg a maintenir pour Euh, peut-être euh, euh, environnement poumon vert waay ñu kii ko ay mhm. poumon vert mhm. ak inondation bu amee wala ndox bi bu bari mu nekk des zones naturelles yoo xam ne day capter ndox exactement mais pour les besoins de d'urbanisation bu nekkee population bi dem nañ ba ville bi étouffée mhm. bu ñu xoolee. mën nañ ko ubbi tuuti nañ def extension mën nañ ko ubbi tuuti. léegi loolu bu amee foofu nag la gars yi di profité souvent daf leen neex. loolu mooy li ñuy wax état daf koy déclasser. day jël décret mu déclasser ko. mais pour ñu déclasser ko il faut ñu def dañu war a def étude d' impact environnemental bu ñu defee étude d' impact environnemental bu ñu gisee ne lii bu ñu ko déclassé fii mën na indi problème environnement bi duñ ko def. Mhm. bu nekkee ne nag du am problème wala am na ay parties yoo xam ne mun nañ ko def te du am problème ñu def ko loolu bu ñu ko defee suuf boobu day génn ci domaine national. Mhm. dem ci domaine public. Euh, maintenant euh, c' est l' moom moo koy gérer léegi bu demee ci domaine public. mooy immatriculation bi ñuy wax les terres du domaine national c'est des terres qui ne sont pas immatriculées mais bu ñu koy bëggee yóbbu ci domaine public dañ koy immatriculer. mais est-ce que un président élu euh, mën na dellu si waat ci loo xam ne son prédécesseur moo ko defoon jëm ci loolu parce que dans les deux cas président Sall bu ci nekk am na am na ci wàll boobu rôle boobu ci joué. effectivement un président si lépp la mën a.